mooy itam bokk na ci yéene yi mat a gën a teewlu mooy teewlu sa digg sa boroom ci anamu cofeel nag yàlla bëggim la bëgg ak bëggim ko bëgg suñ boroom day ku bëgg doomu aadama la li wax ne Seydina Moussa alayhi salaam moom ma sa wax suñu boroom ne ko fan laa lay fekk man de dama bëgg agsi fi yow nan laa def ba agsi ne suñu boroom ne ko Eh, dafa wax suñu borom ne ko yaa rabbi ayna anta fa aqsidak foo ne bu man laa wuti mu ne ko ida qasadta faqad wasalta soo amee yéene jublu ma jub jub jub si si ma rek xamal ne agsi nga eh, yàlla bëgg gi nga ko bëgg a jegeñ jegeñ lu loolu lay fay te moom wax na ne soo ko wutee soo doxee wuti ko boo doxee masalan mètre mu dox fukki mètre fukki kilomètre moom wut la te loolu mooy xadis bi imam Buxaari net léeg muslim wax ne ana inda zanni abdi bi mooy sama jàmbite lu mu jot ci man rek ci loolee laa koy fekk wa ana maahu ida zakarani te saa yu may tudd di ma fàttaliku na xam ne maa ngi ànd ak moom <laughs> fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi soo ma fàttalikoo yow kese man sunu borom ma fàttali la dégg tudd la man kese te yàlla tudd la loolu ci jaam bu doyadi dara gënu ko rëy wa in dakarani fii mala in dakartuhu fii mala in xayri minhum boo toogee ci biir mbooloo fàttaliku ma tudd ma moo xam ñooñu yëg nañ ko wala yëguñu ko wala nga ànd ko ñoom nee na dinaa la tudd ci biir mbooloo moo xam ne ñoo gën ña nga toogal wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi ziraan soo doxee fukki centimètre dégg nga wut si ma ma dox mètre rek wut si ma wa in taqarraba ilayhi diraan soo doxee mètre wut si ma ma dox kilomètre wut si la wa in atani yamshi ataytuhu harwala booy dikk ci man booy dox man damay daw gàttandu la subhanahu wa taala te moom maana doy doy doy ndax sunu lépp ci moom la ajo sunu dund ak sunuy noy ak sunu am ak sunu ñàkk ak sunu wér sunu ñàkk wér lépp moo ko yore di ko doxal nu ko neexe nun way ñàkk lañ te moom mooy ki am ba pare doxal nun nii am na xadis boo xam ne imaamu ahmad moo ko nettali wax ne suñu borom dafa wax ne xadisu qudsi yi wax ne yabna aadama qum ilayya amshi ilayk wamshi ilayya uharwilu ilayk yow doomu aadama amal yi tey jug rek wut si ma dama man ma dox daal ma daw gàttandu la boo dee dox nag nee na moom ma daw maanaam jugal rek wut si ma man ma dox wut si la ma dox gàttandu la soo doxee nag wut si ma mooy ma ma ma ma daw gàttandu <laughs> te ni ñuy doxe wute yàlla mooy jaamu yàlla yi rek ak seetlal sa xol ndax dox bi doxub xol la xol mooy jéggi état yooyu kiiraay yi dox sa diggante sa borom maanaam dindi gi nga ko yàlla dindi ci sababu leer gi nga xam ne moom mooy juddoo ci jaamu yàlla yi loolee dañuy tuddee ab dox boroom moom lu baax rek lanu ji lanu bëggal wax na ci alxuraan ne seytaane moom ak ñàkk la leen di jëme moom la leen di digg itam ak lu bon lu bon rek la leen di diggal itam waaye wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadlan yàlla moom li mu leen di dikk ak fa mu leen jëmee xewal la ci yéen te moy jéggal leen te defaral leen seen bopp defal leen ay xewal yoo xam ne mun leen ko amal seen bopp rek wax na ci xadisu qudsi ak xadis muttafaq alayhi boo xam ne yonte bi moo wax ne sunu borom yabsutu yadahu bil layl li yatuba musiu nahar wa yabsutu yadahu bin nahaari li yatuba musiu layli xata tatluca alchamsu min magribiha bis bu ne bëccëg bu ne suñu boroom dana tàllal loxoom jaam ñi doomu aadama yi ne leen ana ku bëgg ma jégal ko nga kaay ma jégal la ana koo xam ni dama dëdd woon wan ma ginnaaw xanaa doo ñëw ma ma jégal la defar sama diggante ak nee na guddi gi noonu la koy defee dana tàllal loxoom jaam ñëpp ne leen kaay leen ma jégal leen te am ñoo xam ne xamuñu yàlla ndax xam ne dañ ko weddi am ñoo xam ne jàpp ni amut ñoo ñuy waxtu ne yàlla da leen di tàllal sun suñu borom da leen tàllal loxo di leen woo ngir ñu dëpp anam gi mu koy defee nag mën naa am ci anam yu baree bari waaw ndax ñi nga xam ne dañuy dem ba mu yàgg ñu gëmaat yàlla la leen di tax gëmaat yàlla ay anam yu bare bari la yooyu yëpp nag ay message la yoo xam ne te ci suñu borom lay jóge subhanahu wa taala waaw wax na alayhi salaatu wasalaam ne suñu borom wax na maanaam day wax jaam ñu ne leen yaa ibaadi innakum tuxti'uuna bil layli wan wa ana axfiru dunuba jamian fastaxfiruni axfir lakum yéen sama jaam ñi dey ci mooy yàlla rek ngeen dëkk guddi geeg bëccëg waaye man waxtu ne maa ngi leen di am yéene jéggal leen seen bàkkaar yépp ku ma ci jéggalu rek ma jéggal la bu ko defee loolu mas na jee dégli imaamul Ghazali nett li ci Ihya mook borom xuutul Abu Taalib al Makki te mooy dañu wax ne sayiduna Moussa sayiduna Daawud alayhi salaam la suñ borom masa wax ne ko yaa Daawud law yaalamu almudbiruuna anni kayfa intizaari lahum wa shawqi ila tarki maasihim lamaatu shawqan ilayya yow daawuda ñi nga xam ne dañ ma dëddu nanguwuñ maa xam jàpp ne amuma sax maanaam wan ma ginnaaw ñooñu bu ñu xamoon ni ma leen di xaare ñu may xaare bis ba ñu jël si day danañ danañ am kersa ba ba ba faatu ngir cofeel ki nga xam ne moom moom moom laa am ci ñoom ak bëgg gi ma bëgg ñu dëpp ne ko nag ginnaaw loolu laay jëflanteeg ña ma ginnaaw kon ñi ma dëgmal waxi noppi yàlla <laughs> yàlla defal toog yoon dëgmal ko ah, te moom bàkkaar moom bu mu la tee wuti sa borom suñu borom wax na ne yab na aadam innaka ma daawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma fii ma kaana fiika wala ubaali yow doomu adama soo ñëwee woo ma yaakaar ma rek dinaa la jégal sa bàkkaar yépp ak nu mën a toll ak loo mën a def rek ci kaw suuf te loolu du doon dara ci man yabna aadama law balagat dunubuka anaana sama summa stagfartani gafartu laka wala ubaali yow doomu adama bi su sa bakkaar yi bari woon ba mel ni fepp suuf yi ñu tegal ko ba ci kaw asamaan sa nga war ko ci ci lu bon ak ci lu bàkkaar ak i sikk soo ñëwee ne ma jéggal ma rek ma jéggal la te du doon dara ci man du ma yëg sax ne mas nga ko def yabna aadama innaka law ataytani bi quraabil ardi xataaya summa laqitani laa tushriku bi shay'an la ataytuka bi quraabiha maghfira yow doomu aadama day soo defoon lu toll ni suuf si dégg nga ci bàkkaar te nga ñëw boole woo mag dara dinaa la wutal njéggal gu toll noonu dóor ko ca bu ko defee mu yàq lépp nga xam ne dootu amul benn bàkkaar <laughs> wax na ci alxuraan moom suñu borom ne dafa bëgg ñi nga xam ne dañuy si ci moom maanaam dañuy def ay ay njeexum xëy na wala lu bon ñëw jéggulu yàlla yàlla jéggal leen ñu demaat defati leneen ñëwaat jéggulu ñëw gi ñuy ñëw ak a ñëwaat di jégalu loolu mooy tawwaab yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahhirin wax na ci alxuraan itam tagg ñi nga xam ne suñ defee aw ñaawteef ginnaaw ba dañuy xalaataat seen borom am kersa dal di jégalu suñu borom fàttaliku suñu borom xam ne yàlla am na te mi ngi leen doon gis ñu am kersa alladina ida faalu faaxisatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wa hum yalamun ulaika jazaauhum magfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min taxti al nga xam ne dañuy def lu bon moom loo xam ne ñëpp xam ne lii lu bon la wala ñu tooñ seen bopp defi njeexum yoo xam ne doy na waar waaye ginnaaw ba dañuy fàttalikuwaat yàlla am kersa amuk rëccu ñu dem jéggulu suñu borom tabaaraka tax la ñooñu suñu borom ñàkk gi ñàkk dëgg nuur continuer ci bàkkaar yooye loolu leen suñu borom di jéggale maanaam loolu bokk na ci liy sabab ak delsi gi ñu delsi ci moom rek moo tax suñu borom jéggalaat leen digg leen itam aljana ëllëg te yonente bi alayhi salaam wax ne yow bàyyi saa yu jégglu suñu borom suñu borom da ciy bëgg mbégte mu raw waajoo xam ni dafa nekkoon ca digg àll ba yor lekkam ak naanam def ko ci genn gileem wàcc di faj aaju rek gileem ga daw mu wër wër ba gise ko xam ne moom dafa faatu rek moo fi des mu ne naa tëdd fii def ko muy sama bàmmeel ba mu tëddee jekk ne xenit yem ci gileem nga ak lekk ga ak naan nga mu bëgg ba sunu borom yow anta abdi wa ana mooy yow yaay sama jaam yow yàlla man maay sa borom maa ngi lay sant maanaam yonent bi da wax ne maanaam mbégte mu ëpp moo tax moo ko jural njuumte loolu kookee nag nam bëggee su yonent bi da wax ne yàllaa koy gën a bëgg saa yoo delsee fi moom toog fi bërëb tàllal ko say loxo ne ko maa ngi lay jéglu <laughs> subhanahu wa taala eh, wax na ci alxuraan moom suñu borom ne yéen sama jaam yi nga xam ne lu ne def ngeen ko ci lu doy waar ci lu bon bu leen naagu bu leen jàpp mukk ne duma leen yaram ndax man bàkkaar yépp lay jéggale qul yaa ibaadiya alladina أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سن برم برم لدي وار لنخ أمن صخ آه، لني نتلي وخم أمن نيان وخنا دو حديث وعي معنا لجوان سن برم آه، دفعي وخنا doomu aadama de mbiram moom doy na waar ndax man damay sàkk ba noppi mu dem la ma sàkk mu wutal ko beneen borom bu muy man mu wërsëgal ba noppi mu jàpp ne keneen ak ko defal waxtu wu ne maa ngi koy yónnee xéewal te moom waxtu na lu bon rek la may yónnee maanaam du def lu baax damay dama koy defali xéewal ndax li nga am ci xéewal même nooyi gi nga noyu fi ne ak nelaw yi nga mën a tëdd nelaw ko ak yooyu yëpp xewal la suñu borom wax ne ataxababu ilayhim bin niam wa ana alganiyu anhum waxtu wu ne damay leen di jéema jegeñ jegeñ lu sopp sopp lu bëgg ñu sopp ma ba ma leen defal xéwal yu bare bare bare te man soxla du ma leen dara waaye ñoom waxtu ne dañuy mel ne ñu bëgg ma bañ leen ba tax na ay ay ay ay mooy yàlla rek lañ ay mooy rek lañ may lañ may delloo te ñoom mënuñu maa ñàkk wahum ahwaju shay'in ilay ahlu dikri hum ahlu mujalasati mooy ñi nga xam ne ñoo may fàttaliku ak a tudd moo xam da jàngal xuraan wala ngay jàng xasida wala ngay def genn tudd yàlla ak gu mën a doon rek ak noo ko defee ba mënul yooyu yëpp yor sa kurus di wax astaghfirullah rek wala laa wala loo man loolu dara gënu ko rëy ñooñu suñu borom da wax ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom laay jataayool ma jàppal ne yàlla mi ngi jataay ak ku bëgg a jataay man na may tudd fa man araada an yujaalisani falyazkurni ahlu taati hum ahlu mahabbati yi nga xam ne nag dañ may topp moom di jëf-jëf yu baax ñooñu nañ xam ne ñooñu rek laa sopp waaye wa ahlu maasiyati laa uqannituhum min rahmati ñi nga xam ne dañ may mooy ñooñu it nañ xam ne taxut ma bàyyi leen duma leen xañ mukk sama yermande fa in taabu fa ana xabibuhum buñ dellu see ñëw jégglu na def leen soppe jegeñal leen fàtte mboolem la weesoon maanaam farko wa in aqbala waxidun minhum ilayya taiman talaqaytuhu min baid kuy ñëw sax di nar a bala nga agsi ma gàttanu la mooy dalay leeral yoon wi leeral sa dënn nga bëgg lu baax yooyu yëpp ne ci gàttandu gi la bokk wa in arada anni waxidun minhum aasiyan naadaytuhu min qaribin qailan lahu nee koo xam ne nag dama ko gis mu dàngang rek dëdduma bañ ma wut di mooy rek jëm feneen fu may man kookee dama koy jege léeg rek ma fàttali ko ne ko yow foo jëm ay ayna tadhab alaka rabbun xayri ndax da am beneen buur bu may man ndax xam nga ñi mboolem ñi mooy yàlla itam kenn ku ne danga am jamono yoo xam dañ xaw a dellu ci yàlla mboolem ñi gën a mën a wedd yàlla ci adduna bi sax léeg-léeg ñu am jamono yoo xam ne dañuy jékki rek igaar ngëm goo xam ni ak ay mbiri yoo xam ni mooy yàlla yëglu gi mu leen yëglu rek ak laaj gi mu leen di laaj lii mu wax bi suñ borom daal noonu lay doxal ak jaam ñi wax ne boo defee benn bu baax ma fulal la ko fukk te dama koy yokk mën naa ko yokk ba fu kenn xamul nu mu toll lu bon nag boo ko defee benn boobee rek lay bind te loolu dama koy jéggale itam ku ma ci jéggalu rek ma jéggal loolu euh, wax nañ ne asar la wax nañu wax ne xadis qudsi la waaye nag euh, amut maanaam nekkul ci amut tislee daal <laughs> wax dëgg yàlla waaye nag nit ñu baax ñi dañ koy wax di ko kii mën a nekk itam kenn ci ñu wax ko ala lisaanil xaal donte ñeen di am na borom xam yu mag yi ñu koy nett li jàppe ko xadis waaye loolu yeneen nas yu bare bari mën na koy tegtale mooy texte yu bare bari alquran ak xadis yoo xam ne loolu lay tegtale wax ji mu wax suñu borom daal wax na ci alquran ne moom li mu bëgg ci noonu mooy jéggal nu ak dimbale seytaan nag moom moo nu bëgg a yóbbu feneen dugal ci ñun yeneen i xalaat sore lañu ak borom sun borom lu woyof rek la bëgg ci nun ak lu nu jàppandal ak lu nu dimbali yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash alchahawaati an tamilu maylan azima yuridu allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa kon xeeti xalaat yooyu ak xeeti yooyu teew teewlu sunu borom jàpp gim nu jàpp ak bëgg gim nu bëgg ak wutsi gim nu wutsi te soxlaaluñ dara loolu bu ko nit ki xalaat dana ko jural bëgg yàlla subhaanahu wa taala waaw te itam nga ba nga bañ a diglu nag mboolem yi gaa yi waxaat xam ne yàlla moom buur bu baax la boo xam ni bokkut ak doomu aadama doomu aadama ñooy mer ak di jàppal nit dara ak di maanaam jàpp maanaam mer moo xam ne daana faw loo ngànk loo ngànk faw mu dakk waaye loolu suñ borom sore nag loolu suñ borom buur bu baax la yàlla na yàlla defal tawféex bu ñuy génn koor gi mbooleem lu waaye nit ma a am rek ndax koor mu gisee sëñ tubaa tamit bañ mu gën a gudd sax waaye buñ gisee sëñ tubaa yu baree bari wax na ne ci biir koor la ko am loolu waxtaan nañ ci fan yële rek noo ngi ñaan daal yàlla defal nu tawféex ba guddi ga nga xam ne itam mooy laylatul qadr yàlla na dajeeg moom te buñ dajeeg moom yàlla na ko yàlla nangu te googu itam amna na sharia te moy diko dundal rek ak di jéggulu yàlla subhanahu wa taala yeen bi alei salatu wasalaam soxna Aysa ba bam ko laaje lan la ci wax dana ko nangay wax ne allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afu fa'fu anni ngok dundal ko buñ ci agge yalla yalla dajale ak mom te nangul lu lépp wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh